noo ngi sant yàlla yàlla bi nga xam ne moo wax ne yow la kaw sax julli lal sa borom sa nga ren bi ñi la bañ mooy ñu kun noo ngi sant ne amul benn buur moom amul benn amul bokkaale mooy buur bi nga xam ne ni jaam bi feeñal ak li nëbbu moo yal borom maa ngi seetlu ne Seydina Muhammad jaamam la ndawam la yàlla moo ko yónni ngir mu jot lépp leeral yàlla na yàlla lii ci moom ak ñu ñëw kat saxaaba dañu xam ne dañoo gàddaay te jihaat yàlla na suñu borom tërmal ci moom tërmal du bëri bëri. ginnaaw loolu mbokk yi noonu ragal yàlla te sant yàlla delloo yàlla jukkal ci xéewal bi bàgg yi te nu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala jamiil al-anbiyaa wal mursaliin yàlla moo ko saral si sunu maam Ibrahima ba mu ko joxee ba mu joxee doom bi nga xam ne moom mu rendi ko ngir natt ko sunu maam Ibrahima gaaw jëfee digalu borom jël nañ ci Ibrahima ak suul moom ci ñu jëlee ci xajatu Zayd ibnu Asam ñu ne dañoo wax yàlla gàllankoor ne ko lan mooy tabaski yi mu ne sunnas ñu ne ko ci am mu ne war guné am nga ci jëf bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa na ñaari sar benn bi mu tabaski moom ak ñoom bi ci des mu tabaski kon bopp yi nanu gaaw ci dundal su am na ci leen ci gis ne dafa war ci ku ko mën loolu ñoom doon al awsaax yi loolu la al lays loolu la am na benn riwaay bu ñu Ahmad loolu la gis lu war waaye du wóor la ko la baax ëpp ci borom xam-xam yi ñoom dañoo gis ne sunna la te mooy alxawlu muxtaar te ñu sukkandikoo ci li bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñett nga farata la ci benn farata la ci man tafawul ci muy ren ni mooy tabaski ak witr ak ñaar rakkay yor-yor euh, tabaski nag mooy li gën ci la def ci bis bopp te mooy ren bi ndax ren bi gi dafay dundal <coughs> sunna ba ca gën nag mooy ba ca gën a duub ba ca gën a suur nit ki mën naa am benn dàq gàtt ba nga xam ne mooy doy na ci xar mooy xar mu tax ci lenn ci wax yi danañ ko leer am nag bëgg bi ci bu dee bëy moom itam am at ba dugg ci atum bu dee nag na am ñetti at bu dee gineer na am juróomi at te nañu teet te moytandiku nag xam ne ñoo am ay lu mat xar moo xam ne nii daa day sox sox bu wala mu feebar feebar bu wala mu yooy wala li ëpp ca ba daan la ciy si noonu nag mooy li ñu tabaski sa nga xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj ba nga teewloo ko li ci des nga jox ci hadiya say xarit ñetteelu xaaj ba nga taxe ko kon ngir Imaam Maalik ñoom dañu wax ne sunna su fekk na ko la moom tabaski ngir li ngeen wax ne fekk li ngeen wax ne umirtu bil adiyyati fahiya man lañ maa digal tabaski muy tar man waaye yéen sunna la ci moom sunna su fekk la ci ko sunna la ci ak gor soo xam ne aajowoo kon sunna la ci ko man moo xam wane la moo ku tukki wala ku tukkiwul kon su ko mënoon bi xilaati sadaqatul fitri nga xam ne bu ko koor bu ko dañuy sàkk ci yow nga dem ku ne tabaski nag bopp wàcc naa bu dee la lañ ci gën a tàmm wala la gën a siiw mooy mu am at at mu mat sëkk ba dugg ci ñaareel lii mooy almashhur mi mooy li gën a siiw waaye am na yeneen wax ku mel ne al Euh, loolu la wax am nañu wax ne bu amee juróom ñetti weer dana baax loolu nag dañ ko jël ko ci Mali am nañu wax ne bu amee juróom benn weer loolu mooy ah, wax mooy ko amee fukki weer mooy wax waaye sax loolu nag moom dane bu amee juróom benn weer kon gis nga am na ñeent wax ci mbir mi ci ngir mi waaye ku ci gën a lëj gën caa siiw mooy njëkk ba te mooy mu am at mu mat sëkk bu ñu wax at nag atu wolof yi lañ wax waxuñu atu tubaab yi bu dee na am at ba dugg ci ñaareelam dugg bu mat bu dee ñetti at bu dee gineem at ba dugg ci juróom benn xanamu óorit moo gën moom lañ ci bu weesoo loolu am tab moo ci topp ci ngëneel waaye am nañu wax ne am tab gënee suuf mën nañoo gënoon tab bu tab jàllee nag xar na góor moo ci topp moo gën bëyu góor bu jàllee bëyu góor bu jàllee bëyu jigéen bu góor bu jàddee bu jigéen bu jàddee bëy bu jàddee gëléem xayit bi nga xam ne nag du bu bat wala mu feebar wala muy soox soox bu fës wala mu yooy lool ba xamul keres kon xayit yëpp dañ koy moytal ak jeex bu dee xar-xar bu tuuti rek mënees na koo maye. xar nga dof matul tabaski xar moo xam ne fër matu xar moo xam ne napp ya xar moo xam ne nii maanaam genn ba boo ko xaajee ñetti xaaj dañoo dagg benn xaaj ba lu bon xam tabaski wala xar moo xam ne amul genn wala xar moo xam ne xet ak gémmiñ nga kon yii mooy ay bi nga si bañ ko ci maam matul tabaski am tabaski tamit ñu jaay dara du der du yàpp wa kon yàlla nañu yàlla may ñu fekkee tabaski bi te ko nit ñu ko diggalee te li ci nit yëpp suñu borom defal te yàlla bu doon suñu ñu tabaski te it ñu bàyyi xel woor du alfa lu màgg la day far ñaari at at lu jiitu ak ñun nag suñu mag ñoom juróom-ñeenteelu fan tabaski lañu wax sëñ bi ci bindam juróom fan tabaski lañu wax kon suñu juróom-ñeenteelu fan woor ko soppali ko lool ak fan ba te mooy yow tarbiya kon ku mën woor samedi woor dimanche baax na lool te bari na tiyaaba lool bari na nga ne a yàlla ñu yàlla jigal suñu bàkkaar yëpp aquulu qawli haadaa wa astaghfirullaaha li wa lakum wa li-saa'iril muslimiin inna Allaaha ya'muru bil-'adli wal-ihsaani wa iitaa'i dhil-qurba wa yanhaa 'anil fahshaa'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkaruun